dans office bi mais pas directeur bi. dinañ toog board bi 45 membres la 30 ak 15 yoo xam ne ñooy exécutif board bi. dinañ toog ñoom ñu waxtaan ak officier ak man ak Dramé. léegi ñoom nag décision buñ jël. ne mhm. su fekkee dañu dem élection. ñu dem élection su fekkee ne ñii lañ reconnaître comme ñoom ñoo yor organisation ñu yor ko su fekkee loolu lañ d'accord nañ xam ne fii moom dañ koy tëj yaa luñ fi nekk créer beneen organisation ndax benn organisation ñu di diviser communauté bi ah. lépp ko xam ne transparent teg ci yoon transparent ñëpp dem voté ji képp koo xam ne moom lañ fi teg ñu xam ne moom lañ fi fekkee gagné nañu ñu dem jàppale leen su fekkee ñoom ñoo perte waaw loolu mooy dëgg oui c'est la démocratie ko ci anglais wax ko ci anglais nag leer wax ko ci anglais wax ko ci anglais wax ko ci anglais ba ñu xam ni nak ñu def ci te yow lañ ko defee wax ko dégg wax ko ci anglais ah okay ah speak english at least we need to verify it because it doesn't make any sense to have a list like this it's yes. normal how many people how many people how many people we got 30 people 30 people the only legit president president over here. Okay, Devlin, sorry, go ahead. No, Devlin, guy, Devlin. Angela. Okay, we just have an agreement with them. So, temporary, there is no president okay. of the organization. Right. The place gonna be shut down. That's right. We gotta go do another no, election. No, no, the, no, no, the, guys, the place, the place will not is still open. It's not gonna be shut down. Yeah. But the the office the office of the president will be shut down temporarily. Okay. And uh, they need like all members of the of the, of the board. steering board yes. to meet with the officers. Yes. And the president, uh, we two president will be there, like Drame and Serin Bakijai. Yes. Uh -huh. So after that, that's the committee that We're will decide. decide if they recognize the electoral committee. If they say yes, they will listen to them. Also, but yes. everybody must know that we're not gonna let nobody bullshit yes, happen again. Yes. Because running the organization for the last everybody, All the Senegalese vote for you. And there is no reason. Because, it doesn't make any sense to wait until a month before the election to change the rules And all members have the right to vote. If you have to organize an election,

gis ngeen bu baax déclaration bi nga xam ne moom la Serigne Mbacké Ndiaye def I'm sorry I'm sorry gis ngeen déclaration bi nga xam ne moom la Serigne Mbacké Ndiaye def après bi mu waxtaanee ak euh, commissionnaire bu fii ci Harlem euh, ginnaaw nee nañ nag association bi mën nañ ko bañ a tëj mais danañ euh, tëj office su président bi parce que duñu reconnaître benn président pour l'instant parce que Euh, gis nañ coow li fi amoon depuis euh, décembre ba tey ñaari élection ji toon fi am ñi ànd ak Serigne Mbacké Ndiaye ci buntu association bi ñi ànd ak euh, Dramé dem voté ci beneen côté côté 135 loolu nag taxoon mu jur coow ci fàttali ki candidature Serigne Mbacké Ndiaye dañ ko rejeté woon ndax ay background check background check nag moo nekk casier judiciaire boo xam ne dañ ko ko laajoon bu état bu dëkk bi moom mu dem indi fédéral buy euh, wax ne euh, cinquante états yi nekk ci biir US yëpp moom defu fi benn crime gars yi ne ko soxlawuñ boobu bu New York lañ soxla bu dem jëlee bu New York indi après gars yi ne ko rejeté nañ sa candidature taxoon nag affaire bi juróon coow instant yi nag depuis ce matin nag commissionnaire bi euh, commissaire bi ñëw na ànd ak ay élément am pour tëj association bi jamono ji may wax nag lépp moo ngi changé ndax euh, police waxtaan nañ ba d'accord ki nga xam ne moo nekk Dramé di trésorier bi euh, ci fàttali nag li waral cool lépp mooy euh, ñooñu Serigne Mbacké Ndiaye la ñu accusé ne gars yi dañu amee bor ci building bi ñu nekk nekk 209 West 160 Street ci New York dañ ci amee bor ñàkk sàmmanteeg seen i kàddu ba tax ñu amee fi boru 150 000 dollars ci building bi jaay kër ki nga xam ne valeur 800 000 dollars la. Euh, jaay ko ci trois cent et quelques mille dollars te président Macky Sall joxe woon ci lu toll ci cent soixante cinq mille dollars ñu jënd ko finalement nag kër ga mujjee nañ ko jaay xaalis ba ñooñu Serigne Mbacké Ndiaye wax na dañu dañoo sàkkal pexe euh, xaalis boobu ba taxoon ñu bëgg a def benn audit instant yi nag euh, ci la coow li nekk Serigne defoon na lancé li nga xam ne moo nekk benn pétition ay sénégalais yu bari signé ko pour ñu mën a topp ñi nga xam ne ñoo luubal xaalis boobu ci fàttali nag euh, coow lu mel nii amoon na fi en 2018 ci association des maliens bi nekk fii New York ñoom aussi seen président bi ñoo ngi ko mujjee tëj lu toll ci ñaar fukki ak juróom xam nga Amérique dañuy tere wàllum luubal ak yooyu moom dañ ci loi yi dafa dafa yéeme ci côté boobu 2018 ba tey président ancien président malien bi jiite woon association des maliens mu ngi ci kaso bi ñu jenc ndax euh, yuntur yu mel nii ak luubal ak koppar Euh, kon di leen bàyyi léegi léegi incha allah mu nekkoon seen naataango Seydina Alioune Ndiaye fii ci New York pour Senego TV.